mbokki internet yi dal leen ak jàmm Serigne Abdoulaye jóob Khass borom Khass TV Abdoulaye Diop xaas di jëkkër ci sumbulu bàcc li coow li dina newati kur ci moom lépp nag mi ngi ko daal di tàmbali sax ci nga xamante ni dafa daal nag takk ki di sumbulu bàcc li daal di koy def soxnaam mu mel ni ci la problème yi daal di démarré waaw moom Abdoulaye jóob xaas nag fan yële ñu génn sax mu ngi doon xam ne ni rek dafay daal di porter plainte ci nga xamante dañoo jóg pour yàq deram waaye tam ñi nga xam ne dañoo jóg ngir jaxase ko yenn ci ay client am loolee nag mu ko daal di nag sukkandiku ci ab ndaw su jigéen soo xam ne dafa demoon ci émission xalaas ba ca RFM ca ñoom doy baan daal di fay def nag ab audio xam le nii rek ne Serigne Abdoulaye Diop Khass mi ñuy wax di ko tudd fu nekk ci média yi xamul dara xamul dara ba dara booloo jeex ndax moom mi client bu mag la escroc bu mag la ndax daf ko daal di escroquer wàllum xaalis ne dina ko fajal loo xamante ni soxlaam la woon wante mujj ci woon gis dara te xaalis bu dul jeex la la ko daal di jox ak quelque temps après moom ndaw si gis na daal di xam lay Diop xaar dafa dem takk jabar ak ak millions yi ñu ne moom la jox kii di sumbulu bàcc li ak oto bu mu ko jox moom ndaw si ne mu am lu ko metti ndax nit ki mënu koo triande ba noppi toog di noos noosam takk jabaram jël ay millions def ay xewam te moom liggéey bu mu ko defaloon gisu ci dara moom Abdoulaye Diop xaas nag dégg loole ne dafay porter plainte waa xalaas ak képp koo xam ne da nga jógati pour yàq deram mbir moomu nag ba fu mu toll nii xamuñu sax di mujjee leneen daal di ñëwaat beneen beneen ndaw su jigéen soo xamante ni moom itam dafa daal di ñëw porter plainte ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Diop xaas waaw moom sax démb ñi nga xamante ni ñoom ñooy nag waa police dañ ko daal di ba foofee nga xamante ni moom mooy ca kër Abdoulaye Diop Khass biñ ko scorter rek pour ñu mën ko fay xaalisam moom la daal di bëgg ndax ginnaaw ab liggéey boo xam ne daf ko daal di santoon te moom Abdoulaye Diop Khass nag dafa ne nag nit koo xamante ni li muy wax ak lu muy jëfee tegu ko fenn te moom argument bu muy teg saay su ne moom Abdoulaye Diop Khass mooy ne yàlla moom mooy daal di dogal day ñaan dong di def ci alxuraan yàlla mooy dogal ba xam mbir mi dina antu waaw wala déet clientam boobu daal di xam ne ni nag ne loolu dafa yomb lool enquêteurs yi ne ko mbaadu la muy wax moom dëgg la moom client bi xam ne ne loolee dafa yomb lool ndax bu lay wax di la defal li saxaar da lay xamal carrément que ni mën naa laa faj wala mën naa defal nangam nga jël sa xaalis jox ko ca nga koy gëj a teg bët nga jënd sa ticket wala yenn saay pour nga ñëwaat rendez bu ba gis ko sax problème la moom Abdoulaye Diop xaas nag jamono ji mu war a naka daal di wuy ji yoon ak ay millions yoo xamante ni war na ko fay bu fekkente ne rek ndaw si daal di ne gagné naka boobu le procès fu mu toll nii nag ma nga ci ay jafe-jafe yoo xamante ni kenn mënu kaa naka natable ñuy laaj sax ba xam moom nii la ko ndaw soosu demoon ca xalaas doon ko tuumaan baa du loolay bëgg a am ndax ba fi léegi nag amut loo xamante ni ragal na ci deram bi lu dul ne dafay porter plainte yàq deram waaye weddiwul benn yoon li ko ndaw si waxaloon te itam la ko gënoon metti mu wax ko sax mooy fa mu demee wax ko ba dëkk bi yëpp di ko ngaw ci ngaw te ci jamono joo xamante dafay door takk jabar mu mel ni jalousie nag ak nit yi dañ koo daal di yéenewul bonheur bi nga xam ne moom la nekkee ak sumbulu bàcc li ak lu mu ci mën ci doon moom Abdoulaye Diop xaas jamono ji nag manga ci yeneen i jafe-jafe yoo xamante ni sëriñ sëriñu bi mu nekkee moo ko ko yóbbee